ñuy rafetlu mooy le fait que mu am solution ci mbirum euh, kan mooy jëkk déposé kan moo dul jëkk déposé parce que coow la doon indi ci réew mi comme ni mu amee woon ci élection présidentielle man ñun bokkoon nañ donc ci société civile ñu waxoon nañu def tirage tirage bi dinañu épargner réew mi genre coow lu mel nii et donc bu ñu si ministre bi fekk ministère fekk si acteur yi nangu ko parce que aussi loolu gën a am solo le fait que acteurs yi waxtaanee ko ba jubóor ko te noonu la suñu démocratie war a doxee problème bu mun a am ci maalum élection waxtaan mun na ko régler et waxtaan moo régler problème bi nga xam ne indi woon na jaaxle parce que bu ñu ko deful woon euh, mun na am ñoo xam ne tey fekk nañu ñëw commencé ñoo fi jiit ñeneen la démb lañ fi ñëw moo am coow mu am pàccaxoo et léegi loolu xam nga déjà épargné woon nañu si hmm. maintenant euh, donc problème mu tirage bi problème mu dépôt bi rek la na mun na bu amee yeneen problème yi si am aussi mun na bañ a ñàkk mun nañ ko toujours waxtaanee je crois que bu ñuy waxtaan si démocratie toujours dinañuy am ay solution loolu mooy li nga xam ne lañ koy kii maintenant na de passage bi gis nañ ne euh, passe-passe mooy or pourtant passe-passe nekk na peut-être coalition boo xam ne peut-être ñu ko xam sax bariwul mouvement après gëm sa bopp mooy jëkk a jàll après passe-passe boo xoolee yeewi askan bi ñëw septième Benno Bokk Yaakaar ñëw vingt-deuxième position wàllu askan wi ñëw vingt-quatrième position Euh, te pourtant ay coalition yu mag lañ mais jàpp nañ ne li am solo mooy euh, tirage bi moo ko génne tirage bi ñëpp ko fekkee e jàpp nañ ne aussi euh, li ci des tamit noonu la war a continuer dox mu am transparence leer bu amee transparence leer du ma ne coow du am mais coow li mun na wàññeeku. Ah, ah, non Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar li mu déposé démb du li mu joxe démb mënuñu ko considérer comme dépo loi bi moo prévoir boo jëlee article L 176 ak L 149 moo prévoir que ne ñi nga xam ne ay coalition lañ dañuy war a notifier seen i euh, seen i seen turu coalition bokkul ak parti buy déposé par exemple ñooñu bu ñuy déposé loi bi dafa wax ne mën nañu déposé dañu war a déposé waale parrain yi donc sur ce plan je pense que li am solo mooy dépôt bi Euh, officiellement c'est demain a partir de suba. Euh, muy le 6 ba le 8. loolu mooy dépo bi officiel donc ku déposé euh, notification bi dafa jaar dafa loi bi moo ko prévoir moo jiitu quoi mooy ku dee doo parti politique nga am récépissé alors loolu moo jiitu maintenant boo déposé bu loolu amee tam kenn du ko laal ñu ngi commencé laal à partir du 6 à partir du 6 maanaam suba 7 le 7 le huit si la loolu la yoon wax loolu la yoon tëral et donc de ce point de vue je pense que li am solo mooy ñu dem ci élection ci jàmm te jàmm ji pour mu am mooy toujours mbiri di leer di transparent comme ni mu amee tey